paj bi moom ni ma dikkee mooy sama papa jàngal ay taalibeem tàng jàngal na ñu bari ci xam-xam di leen jox rawaan di leen jàngal di leen jox rawaan moom mu yenoon rawaan bi ñuy wax tam xaysa tam siisa tam xoosiya ba yaamat xoriya saydo xoosa wa yaa saxrasiya wa yaa ramati fa yaa rashid fa yaa aljataf yaa tafana ji muy rawaan yi dañu bëri mënuma say expliquer lépp nii dafay jël temps après ma gisoon muy def ay kiraamuy day waar yoo xam mënuma ko expliquer mais da daan def yu doy waar daal yu doy waar mu mu xasi xasidi yi nga xam ne sëñ Tuubaa da koo bind yëpp da koo mokkal mokkal alxuraan ba amul woon ay bët man sa papa daa ko gis yàlla dafa tëjoon ay bëtam ci waxambaane mu nangu ndogal lool nag du mooy àdduna foo ko fekk mu toog lépp lu muy sol lu weex la day nuroo comme Serigne Saliou rek ci du mooy gi mu du mooy àdduna lal bi muy tëdd bëggul mu rafet matelas bi bëggul mu taaru bëggul mu noy lu ci ëpp sax bu jëndee seetlu naa bu saan jënd matelas boo tegee ci lalam day jël mat matelas boobu ne du ci tëdd day jënd lal bu bees tàkk jënd matelas yu duubul duubul ay matelas yoo xam ne nii su fekkee li may wax am na yàlla na ko fekk ci bàmmeelam su fekkee amul yàlla na ma ko téyel bay mal xiyaam te xalaatuma di ko fen euh, mu jënd lal bu rafet jënd ay mat ma duul laa lal ko jël ay kaamil ak ay xasida teg ci kaw jël ay parfum di ko parfum chaque jour mais muntu ubi kame kaamil muntu ubi mënut a ubbi téere yi jàng mais ngi ci dëndam bu musanu toog gis naa danaan to wax euh, ci ay ta ne nelen. ubi kame bi nga jàng ma dégg di jàng-jàng ya mën ko dee taxawal da ngaa juum du nanggam de nangam nangam la aci jubanti ko mu dem dafa mokkoon amul ay bët mais danaan jël xalimaam bik nga jox ko isilo jox ko papier bu weex moom mu jël xalima gi ta amul bët de bindal la aay bi kee di jàng mu bindu ko jox ko bokkoon na ci kiraama gi tamit bokkoon na ci ay kiraamam kiraama yi mu amoon mooy euh, ku fonkoon sëñ Tuubaa la ku bëggoon rasulillahi la sallallahu alayhi wa ba da daan da daan da daan dafa mel ni sëñ bi da doon jëflanteeg moom ci ci ci ci baatin te duñ ko xam ñun muy muy muy muy ni mu dummooyoo àdduna te àdduna mën koo jublu te da koo dummooyu bokkoon na ci kiraama loolu yëpp kiraama lay nekk ci man eh, si yow ya wax nga ko loolu loolu sa papa daan def nga koy gis léegi loolu naka la contribuer yow ci faj bi nga commencé di faj waa faj bi tëbuma tëb def ko man téer laa doon def dama doon jàng téer ba am sama xam-xamu téer man ñaw trop man dagg man ñaw man créer ay modèle di ñaw ay ñawu jigéen ay ñawu góor ci côté 217 boo mu ko tegaloon wala PAF wala VI cornière yëpp dama ciy dawal mën naa ko xam naa ni ñuy daggee xam ni ñuy ñëwee xam naa jàng na ndax def naa lu ëpp fukki at ci téer kon xam naa ko voilà euh, ñu dem may jàng ci métier mi di ja di tarbi sama papa di jàng ci moom ba naa bu fu may jàngee ñaw sax bu soree këram damay toog ñu uti dem fu may àggali sama métier pour rek jege ko bu bu nee sëñ Bas rek ma dégg loolu mais bu may jàng xam-xam bi mu may jàngal faj bi li ma jëkk jàngal mooy composition médicament moom ma ko jàngale ci garab bi ñuy wax euh, mbërbëf ak euh, mango ak guyab mu mu teg ñetti garab yi di ma jàngal ay composition ni ñu ko defee mu may jàngal xam-xam jigéen niñ ko joxee garab góor niñ ko joxee garab ki ëmb te soreegul ëmbam nañ koy joxee garab ki ëmb ba am doom nan lañ koy joxee garab yan lay jël ak lu mu dul jël sam papa da daan joxe ay garab di faj di ñaan bëri mbooloo lu ëpp téeméeri doomu aadama da ka daan dikkal te musul wax ci télé musul wax ci rajo mosul def publicité mais nit ñi dañuy daw di ñëw bëri mbooloo ku nekk xam ne Ousou Diama Ndiaye Ousou Diama tey ji ñi may seetaan xam nañ ne sama papa ku màndu woon lu ko am xam-xam la ndax xoola kéemtaan yi nga xam ne jigéen bu mu saana am fibrom soo ñëwee da ngay toog ci suwa mu jël sa loxo teg ko sa bopp ñaan li muy ñaan fibron bi di xel ba jeex ci suwa bi boo amee ndoxum siteel am na bitéelu boisson yi fi xewoon bëgguma tudd turam mu nekk comme pipe euh, bitéel boobu bitéelu verre la mais day obligé na la tuural boisson bi ci ne nga tuur ko wala mënu la naan ko li ma soxla mooy verre bi nga jox ko ver bi dindi couvert bi comme moom du gis mu seet malaatam bu góor bu amoon ndoxum siti mu ne ko da ngay jël sa saakara teg ci bunt bi nga mel ni kuy tuur ndox mais bul tuur ndox daa lu may wax pour vider ndoxum siti bi nekk sa yaram pour def ko ci biir biteel bi su jëlee loxoom wax a wax wax nga gis ndoxum siti bi day génn ci sa biir deret di ñëw di dugg ci biir biteel bi su paree daf ma koy jox na ma dugal ko ci biir poche bi ma ne ko lii lan la mënu ma lii ndoxum siti la dama koy génne ci yaramu nit kon loolu bokkoon na ci kiraam yi nga xam fekke woon naa ko bu ko nit mu sànne seet si léegi yow yow léegi yow bu ñu ñëwee yow faj bi naka la la dikkalee daf la jàngal li nga wax nii bi mu la jàngalee composition yi nga xool ni muy fajee fibromes ni muy fajee ndox bi ci après yow ci nga commencé di faj wala ban moment nga commencé di faj def ko sa métier. Euh, ci wàllu njàngum faj bi euh, nekkul loo xam ne nii directement dama ñëw rek moom li mu doon def ma koy xool di ko di ko defal loolu rek ma jóg ne man damay faj déedéet daf ma ciy jox ndigal ndigale dafa ne ma mënu ma nekk ci àdduna bi di dund. yow ngay dund ci àdduna bi ba pare bëgg man li may def yow ngoo koy def mënul nekk pour nga mën a am xam-xam ndax dama daan ñëw xaw a mer tuuti ci côté ci buy jàngal ay taalibeem ma ñëw na ko papa lan moo tax ngay jàngal ñii te jànguloo ma li nga leen di wax ñu koy bind mënu ma demal nga def sa liggéey su lu ma la sant nga nekk ci insha allah bi li nekk ak man am naa yàqin bu wér ne boo ma toppee dina ñëw ci yow ma ne ko ma foogoon ni euh, sa waajur su yeree dara bu génnee àdduna taaw la koy bàyyil ki mat ci doom yi mënuma loolu kontiwul ki la gën a déggal gën a jubóog yow wala ki nga gën a xaritool sax mën naa bañ a am loolu ci yow waaye yow sama xarit nga sama lépp nga yàlla mën na def li nekk ci man ñëw ci yow ndax yow da ngay def ay kiraam yoo xam ne sa doo ko jëg ndax man ba ma nekkee mbuur daan naa jël si ndax te lii may wax waa mbuur tey bu ñu ma seetaanee danañ ko xam te boobu xale la ma jël si ndax xotti ko dindi botiti jël ñax def ci biir ñaw ko nako demal mu dem tay ku mu ku mu wax do ko gëm te ba ji ni mën na lool da na jël xal xal fourni boyal ko bu mu boy jël sama yere ma baraaye ko ma jël xal yi sot ci sama biir yere ba yere bi lak te man duma lak da na jël xal timit fekk ko ci fourni ma jël xar bi xal xal ma jël xal man man man Basiru ndjay sék xal yi yeyu ko te duma lak lakk loolu na ci lima amone mais dama ne ko meun dama jàppoon lu ñëpp mën la moom sam moom mu woo tere ma lool ndekete boobu affaire baa ngi ci man te yëguma ko euh, ñuy dem di dem ba ni mu ma ko jàngalee comme euh, li nga ma laaj na ma xam-xam bi ak ni nga ko jàng nan la def ba bu ñëw ci yow wala nan nga def ba faj mënuma bu soobee yàlla dinaa la defal loo xam ne nii dootoo ñàkk dara ci sa àdduna lépp loo bëgg te naa la defal loo xam ne yàlla dina la boole mbooloo mu bari te da nga xetti lu ñu bari ci seen wér gu tey dinaa defal loo xam ne ñu bari dinañ dem ba loo narul loru ñëw ci yow nga génne leen ci loraange googu narul leen daal dinaa la defal loo xam ne doomu bu taxawee sa kanam même boo tubbee suuf boo ko joxee mu nangu dinaa la defal loo xam ne ni bu ëllëgee même doomu aadama bu taxawee jooyu la ay soxlaam soo jëlee ndox boo ko ñaanee ñaanalee sax suñu borom bi nangu ko moo xam lépp li nga ñaan waaye leen rek laa lay dénk nanga ca ne na nga yàlla fo ne te na nga topp sallallahu alayhi wa sallam ci lépp lim bëgg ak lim bañ nga bàyyi bi ci des na nga topp Sëriñ Tuubaa xam ne ni man sa waajur Sëriñ rek laa gëm bëgguma ko du Sëñ Tuubaa yàqin googu moo tax jour bi ma tëddee njëkk nelaw damaa gént Sëñ Muntaxaa mu feeñu ma ci ab nalaw ma gént ko mu ñaanal ma ma yeew ca laa dem ci Touba ànd ak sëñ Cheikh aw Balla Mbacke mi nga xam mooy doomi sëñ Moustapha Bassirou nga xam sëñ Moustapha Bassirou ak sëñ Mountakha ñoo bokk waajur ndax sëñ Bassirou Mbacke mooy seen seen seen waajur te sëñ Moustapha Bassirou Mbacke moo nekkoon sama sëriñu pap te sëñ Cheikh aw Balla ba mu ba mu nekkee ca Pout dafa jëlone sam papa dafa jëlone sama ñaar rak yu goor ku ñuy wax sayidina dem ci yalla ci yalla naka yalla yeeram ak Ibrahima ndjay mi nekk tay ci mbur mu yobbu leen seigne moussa bassir na leen jangal leen alcorane seigne moussa bassir di leen jangal sam papa ci lama ma jëlee boole maa ak soxna bu sa and ak man soxna jaar sama mag la ño bokku ndey ak baay ñu and dem ba seigne moussa bassir Mbacke ñu tok mu ni seigne moussa bassir mu noko ko mba kii astafurlaa sëñ Cheikh abou Balla Mbacke bu doomu seigne moussa bassir seigne Cheikh abou Balla mu ne Cheikh mu noko Mbacke mu ne ko sëñ Moustapha Bassirou du mooy sa waajur du sëñ sëñ Touba mooy sa maam sëñ Bassirou di sa maam te ni ma jëlee sama bopp jox ko sëñ Moustapha Bassirou noonu nga doonee sama sëriñ ndax yaay doomam sama doom ji dafa dama am ci moom lay biir yërëm ko lool muy sëñ Bassirou miy toog damaa bëggoon nga téyel ma ko jàngale ma ko alxuraan ak xam-xam te yar ko ci biir tool yi mu mën liggéey ndax sawar na te nangu naa jëfe sëñ sëñ Cheikh Aw Balla Mbacke moo toog xool ma mu yàgg mu xool sama papa mu ne ko déet yóbbuwaat mu ne ko lu tax mu ne ko dinañ ci waxtaan nii la mbir mi demee ndekete am na baatin bu lal ci biir moom rek moo ko xamoon ci laa ñëw toogaat sam papa na li ma xaw a jaaxal dama amoon yàqam ne bu ma la yóbbee ci sëñ suñ Cheikh aw Balla dina la téye jàngal waaye dafa mel ni ne daal jege nga ma lool lool lool maag yow nag dañuy benn waaw tey leen leen rek laa lay dénku mooy lépp loo xam ci samay secret yu doy waar ba boo ko wanoon nit tey du ko gëm soo ko defee doom wala wax ko doom du ko gëm bu ko wax te bu ko wane moo tax après ma tàmbali faj ba ma tàmbalee ci moom mi ngi dund déedéet sam papa daan naa def lenn muy boobu mu ngi dund nit ñëw am problème jàngoro mu sonn mu ñëw bëgg gis sam papa mu xaw ko jafe léeg-léeg man ma jël ndox ñaan ci wala ma jël ab benn wëñ wëñ wëñ jëm dem ci bitig bi jënd wëñ bu ñuul bu weex bu xonq ma fas ko am lu ma ciy ñaan ëfli ko boobu maa ngi ci doon ñaan yaa yaa samsalii xan wa samsaloo xan wa samsalii xan wa saloo xan ndekete la may ñaan siru la siru bu diis la dafa am na yu may àndal bëgguma koo àggadi ndax nit ñi lu ñu dégg rek bind loolu bëgg koo jëfandi ndax baat yooyu boo ko jëfandikoo lu yàgg ci sa kurus ta danga nga gis jinne na tëpp sa kanam taxaw waaw mu jël mu fas mu fas ma jox ko na ko demal dem day dem gis ay ajoom faju ma xam ne man mii sam pap li mu wax dëgg la ma bàyyi ba nga xam ne ni moom dem na tey ji ba gistuma mu faj arrêté ñu wax lu tax mu ne man dama pare ndax lima desa dese pour ma génn aduna bëreetul mu ne ma lettre khadri bu ñëwee ci wéru koor gi dina wuji sama borom ni lama ko waxee non la met bo bo ba avant bi génn ci la wo amone ben kurus bu ngand bu mag mu daggu ko ci sama kanamu waajur bu jigen fekk ma ñawaloon ko ben bu mu daan defal ay kurus ay parfum mu ubbi gaale waxandaam yoy nga xamné ni ay kànnaar lañ ci daan def mom lu ubbi jël kurus yi ko dugal ko ci ngise ga na bis moko wirté yomul yomal waye basiru mu na ma mu na ma yow la ko denk kurus yi na nga ko na na ko téye bis boo ci amee ndigal nga nas ko boo ci amul ndigal bu ko nas ma na ko baax na mu ne ma maa ngi dem nag wuy ji sama borom waaye sa bu jigéen bii bu ko fàtte mukk ci sa ko téye te nga def ko nis bopp ndax yow la am sama papa wax loolu ci ma na bul mooy yàlla mukk sa àdduna te képp ku ñëw ci sa alal na ko dimbali te yàlla tax da nga dégg lu ne nag da nga daj ne waaye na ko muñ ku ne dina la wuy si ma ne mu dem bañ toogee bu mu génn àdduna ñu toxu ñu jël ci xaalis mu sama yaay fekk dafa jëloon kër gi may sama yaay ma ne ko kër gi bu ko jël jaay ko njaboot gi mbokk yëpp séddoo noonu la amee sama yaay def loolu ñu ñëw dëkk fii Mali ko m ma toog sama machine di ut ay client di ñaw di ñaw di ñaw ñaw naa ñaari atum yàlla ma doog doon sëriñ ci biir atelier bi lañ may fekk di ma dóori xeer naa ma génn fii du sa place su ma jëlee ciseau teg ma jël ci si lal may dagg ciseau bi day tàq samay loxo